baal ma jëlal ma waa ji nga xam ne dafa daal di yor ab poto joomaay mooy sonko bi ku baax maa leen ñu lay bu baax bi nan la Modou la waaw di doomu Bawal lan ngay wax si li nga xam ne moom moo nekk li nga xam ne moom moo alors campagne bi tey waaw tey nag campagne bi comme ni ko gisee rek li ne eh, boo bañee ndogalu ndogalu dogu ci sa kaw ne Macky Sall dogalu ci ku gis mi ni muy benn leadership mooy campagne te nag tere mu ta baal ma gis ba Malick Niang mbër mu weex la woon doon dóore kere ba muy tasee ak Adama Diouf séréer na ko séréer nga may séréer tey damay bëreeg yow du ma la dóor Adama Diouf da ko ne waxoo dëgg yow koo ma sa bëreel dóor nga ko ba wax jay kon ba lamb jay jeexi mu Malick Niang di ko dóor mu daanu kon Macky Sall na xoolaat boppam ñun ñi dajé fi kenn bokku teeg sa morom fo dëkk man ma nga bayiko koo ca lambaay 52 village la Macky Sall musu fa teg tànk billahi wallahi wa taala waye musu koo gaña 52 village yi mala wax tay ji ban jotee ci ay de mbóoj ñun patriote yi lan sante yalla kenn mënu ko fa jigen la gor la def na fa lu fa benn politicien musu def bam né ma jur Ousmane Sonko man ci la sante yalla parce que dama ko xam ku diñ ba taxna tay fi ñu taxaw ñun wa lambay kep kuy patriote ak foo mën na dëkk na nga xam ne lambaay mi ngi ci seen poos man dëkk ba ma dëkk moo gën a rëy ci lambaay di mexey barke alxuraanu karim lu fa am ñoo ko defal sunu bopp tey jii su ma la waxee ASC bi ma yore ñi ko jiite matul 19 personnes diaspora ba dafa taxaw jëndal nu corbillard ñun doomi dëkk ba ñu taxaw jëndi ambulance su 10 millions korité 150 lampadaire lan teg tabaski ñu teg 150 lampadaire muy 300 te doomu dëkk ba jeune bu ne 1000 francs ku nekk bitim réew 10 euros jigéen ña dugg si nan du sëriñ sa dugg si nan te bi ñuy door man lan njëkk a tëj Jurbel ci xeex ñu téye ma Jurbel 19 jours kere ban may atteef la taxaw ci Njaga kenn xamul nu mu toll askan wépp ànd ma xam ne ñun ndaw ñi bu ñu gëmee suñu bopp sax ci dëgg te gëm fi nu jëm luñ bëgg dinañ ko am tey jii dëkk boo gis ci lambaay ma ngay dox ak boppam cotiser parce que li Sonko wax méthode yoonu mu murit mooy bul génn sa bopp ci murit gi dugal ci sa bopp li nga am dee ko ci def bu dee sa doole muy sa fit muy sa poos dee ko ci def gis ngeen combat bi ñi ci maandu woon ñëpp ñoo ci loru mooy maire ba ne doomam bul génn kër gi mu wékkob saagam di jàng yem ci police ñu meeb yóbbu rëbës tey jii ñi nu la des rëbës kenn xamu nu mu toll parce que kenn xamu leen waaye ñi safan sapp ci combat bi démb ba tey kuñ ci jàpp ñu xam ne jàpp nan ko adduna sépp yëg ñu bala libéré la combat bii nag mooy li ma leen di wax rek ku ci génn sa bopp da ngaa rek Macky Sall na xam ne ñii muy rey ak a jàpp mooy ñi ko xeexalan kera man day damaa yàgg xeex injustice bëgguma dara ci àdduna lu dul ku tooñ ñu xam ne yaa tooñ kun tooñ ñu ne la yow lan tooñ Ousmane Sonko mii dañ koo tooñ te barke Alxuraanu Karim feek mi ngi am ñi ngi koy teg dara dëkk bi jàmm du fi am te nag dara mu fi man de commerçant laa Sandaga gee ma ne commerçant boo mase sa wax mooy la caaxaan rek fi nekk 507 cantine la fa Macky Sall toj yóbbu nu de course fan don denc fasé course ya té la xamé né ki respecté wul jam borom kër na yóbbu ko funi yéy fas bu dee ya ko ray mag ña fa né ñëpp nan tay ji commerçant yu bari bank top na leen ñi ci dess jël nañ seen ab xaliss da wuti Amérique yenen seen yi ñu ngi dugg ci gal yi ndaw ñi nak lay waxal gal du ay tiaxan gis ngam réew ña fa juddo rek ñokoy xex Amérique ga ngeen jëm Espagne ga ngeen dëkk doomi Espagne ya ñoo tok bëgg seen rew défaral ko seen bop yow nga bëgg fa demee da nga fay tekki jee yaa ñàkk jom nan toog ci dëkk bii defaral ko suñu bopp ku am fitu kottu gaal trois heures matin war ngaa mën a fitu taxaw ci sa réew mii taxaw xeex yaa ngi dégg ku am fitu kottu gaal war nga am fitu taxaw ci sa dëkk bii xeex man de bëgguma ko ma may huit millions may tukki dama ko bëgg a liggéeyal sama bopp toog ci réew mii gi tangas onze ans laa employé wu barkeb seexul xadim ban may dàq sept cent mille lan ma jox quatre sama bopp samp kanting yor jabar yori doom di sant yàlla Amérique gi bi mu ne këtt ñu ne dawal jaay li nga yor li ngeen nekk ci dëkk dama leen ne fi laay dee Sénégal gii parce que nag namu ma dara xale bu ndaw jabar ju ndaw yor sama kër yoruma nday yoruma baay gëm yàlla gëm sama bopp Ousmane mii billaay maguma 2 février 83 la xale boo fi dugal wala paa boo dugal ci oto mun a gone yi danoo réew dem nañ dëj dem nañ ngénte tabax nañ jàkka joxe nan addiya sëriñ bu fi jàng ñu na bu nu respecté wul na respecté suñu bopp dooda sans gone lan koy def loo gisagu leen fi kilifa gu ñuy jël deretam wala sëriñ buy maye deretam ñun ñi ñooy maye suñu deret nan gëm suñu bopp man de wër na arxuraan Modou maanaa ngi nii borom Sandaga ñi ñëpp xam nan ma nana leen chef de la rue lan may woowee gita ngas rek laa man barkeb sëñ Tuubaa xam yu ma pël xam yu ma susu ku ne ci dëgg rek laa gëm yal na nu yàlla defal jàmm gëm leen seen bopp wàññi boîte de nuit yi ndam amu fa moytu arène nationale bii ndam amu fa yaa ngi dégg ah. liggéey ak jaamu yàlla lool la nu Ousmane sant ah. jaamu yàlla mooy jubal liggéey mooy am loo suturloo ah. képp ku liggéeyul doo am nday doo am baay parce que jur la ci fartas yàlla ak suan mamet mën a loo ki la jur dara mën a loo doom ji soog koo yow dara yaa xar mi ci gétt gi di la joxam ngooñ yéen a yem nan sant yàlla bu baax baal rek ma wane li nga xamante ni moom moo nekk public bi su ko defee rek ñu continuer ba tay daal di jël euh, intervention yi fii si terrain ak APES euh, Fallou mbay moo nekk si caméra bi ngeen ànd ak ñun en direct si Sénégal 7 TV euh, su ko defee rek ñu daal di leen dëgtal li nga xam ne kaa jël ba borom borom souverainement bi nga xam ne. Sonko fi moom rek mooy suñu sëriñ. mooy suñu wasila mooy suñu àdduna mooy suñu alaaxira Sonko tarixa bi nañ jébalu li ñëpp bokk si tarixa bi. da ngaa tatoué sa ma ma lool. ñaar yaa ngi nii moo ngi nii yaa gën a mu toll nii nañ gëm ne Sonko fi ne. yàlla suñu borom dafa doon kaddu boo xam ne Sonko dafa doon kaddu boo xam ne yàlla suñu borom moo ñu ko jox pour ñu mën a dëkkal Sénégal dëkkal àdduna dëkkal Afrique Sonko buñ ko caaxaane ba mu raw ñu wallaahi azim wallaahi azim dañ ko rëccu Sonko mooy suñu sëriñ Sonko mooy suñu wasila Sonko mooy suñu àdduna Sonko mooy suñu alaaxira tarixa bi ñëpp a si bokk barki ko gëm de moom moo fi ne de Sonko rek nañ ko gëm de. donc Sonko billaahi walaahi talaay Sonko bu ñu joxañee xaj ba ci dëmm ba ci mbaam dañuy ànd ak moom. Sonko dëgg la woote nous sommes tous les Africains qui est pauvre ah jeunesse Afrique la yéen laay wax xaaral ma àgg bi naka ñëpp dégg jeunesse Afrique jug leen jug jot na de. jug jot na. say laafayintee yëpp taxaw peut-être ngir fanaan say njiit bi ñu faloo si dina la gis. tey lan nga yëg tey si terrain ak mooy xool bu jeex ak yaakaar ku tas ci réew mi xam ne ñu ngi koy yooyu jaay doole ku wax ñu tëj xooxatal nit ñi kenn xool ku wax ñu ne kaso damay wax kaso ànd ma ak yow kaso. vocal bi nag dama bëgg tous les jeunes africains mu dégg ko ah. tous les jeunes africains téye suuf yi tous les jeunes africains il est euh, bu tàng ndax tout le temps il illégal il est bien dina xool ba daan taxaw nous sommes Afrique nous sama vocal bi vocal bi vocal bi africain yëpp laa koy lancé on a lancé appel tous les Africains tous les Africains tu es souvent pourquoi le njiit il est bon il est soxor il est iñaan il est tout le temps tout le temps seen Africain ay waay wakaat déglu na ma déglu na ma yéen. saa déglu na ma déglu na ma yàgg la xam on a terminé on a terminé on a terminé on a terminé ñun jeunesse il faut ñu respecté suñu bopp ndax kon man ñu ànd ak ñoo xam ne amuñu yërmande si askan bi bëgguñu askan bi di xoqate askan ku feebar faju doo faju man tey jii CREC po police na saa seen dama dóor sama petit saabu laa diwoo mu mu mu tane nañu bi. Afrique tout l'Afrique il est souffrance de quoi mu comment Ahmed Assane il est Ousmane Sonko il est jàmbaar Ousmane Sonko il est Talba Kanam ngir Sénégal tout le Sénégal il est souffrance c'est moi il a moi c'est beaucoup Les tuuti les java beaucoup on a dit vocal bi nag naka Macky Sall dégg tur bi nan la sax yow aada kuru da ngay def aada def espace def aada ka yow gars yi ràññee nañ la yow fi mu ne ma àgg la vocal da ngay def aada def espace def K O U L O ñu ngi ñëpp seetaan ci TikTok bi maa ngi def maa ngi def fi tàng yëpp ngir Sénégal gu baax man xool Sénégal jaar na ma sama bakkan Fallou waneel ma waneel ma waneel ma mbooloo boobu nga xamante ni waxtu wi ñoom ñoo nekk noonu euh, def seen bloc euh, euh, di nekk li nga xam ne moo nekk noonu di daw en tout cas ñu wan leen bu baax a baax li nga xam ni mooy xew fii si diwaanu Tere ak Pes ma ànd ak Fallou si caméra bi comme d'habitude rek si ko defee ñun du nuroo leen lépp luy campagne électorale jëmale ko nag si nga xam ne ni moom moo nekk alors fii si terrain bi Fallou taxawal nii rek

andi leen ma waaju